te defe naa ne. Mhm. Euh, kii di mobile. Mhm. bi nekk Amérique tey. waaw li taxoon ñu ajoon ko <coughs> juróomi at ci ren su ma juumul. wax yu mel noonu la woon. waaw léegi nag. Mhm. CNG. il faut aussi ñoom ñu mun a di toog di waxtaan ak mbër yi. parce que Ama Baldé dafa toog ne depuis combat yi mu dala bëree ba fii soixante quinze millions. waaw bu calcul li ñu ko dagg. Gris Bordeaux wax na. Euh, ku nañ ci ñoom saraat yàgg nañ jooytu li ñu leen dagg. ci làmb Tapha wax na. ñu ne euh, kii sondel moo tax ñu ñu dagg ko. un ñu dagg ko Ama léegi ma ne ko ñoom Baye Ndiaye ñi taal ay feu nag. ci hmm. biir waaw bomb yi di tàkk ci làmba ji. ñooñu xanaa de. mu <laughs> leen di moom sax loolu la wax moom sax loolu la ah, mais mais aussi. mais mais dafa ëpp nag de. mais mais Balla Gaye nag dafa juum ci wax jooju. parce que Balla Gaye kilifa la ci làmb. parce que ñoom sàcc bi bu sax bu sax xol xol xol xol tàng wala kii ba nga toog ci plateau am noo communiqué. Mm-hmm. parce CNG ak mu mën demee. waaw ñooy kilifay làmb ji làmb ji waaw effectivement. mën nga communiquer Gris Bordeaux mën nga ko dégg mu communiquer ba déraper. pourtant da leen di dal. Mhm. wax leen ful la. mais am na fu muy yem. Mhm. Balla Gaye nag mun nañ ko jéggal ci loolu xëy na toog ci plateau. xol bi jóg dagg yi metti aussi. Mhm. mu juum. mais nit aussi boo juumee. nangu da ngay nangu dangaa ngaa juum. waaw ñoom Jojo ak ñoom Père Zora seen série bi ñu aj Babacar Diagne aj ko. dañoo juum. waaw parce que série yi Sénégal yi. Mhm. am na fa bu fa tolloo aussi il faut ñu delloo saa seen xel ay xale dañuy seetaan série yi. waaw saaga yi ci biir série dafa ëpp. Mhm. waxi ñaar ci biir série dafa ëpp. Mhm. mais ñoom am nañu grandeur ñoom dajaloo dem seeti Babacar Diagne ne ko dañoo juum. dañoo juum waaw. xam nga juum daam li nga def sànq noonu. loolu ku amul grandeur munoo ko def. munoo ko dëgg la tooñ nit xam ne dama la tooñ. yombul de. après taxaw ne wax dëgg yàlla maa la tooñ. damaa juum mais nga woo nit rek. bëgg ko sanctionné. waaw mais woo ko wo bu njëkk comme comme Matar Gueye Jamra nu muy suñu papa. boo mhm. boo juumee da lay woo. verbal ah, li nga def kat. Mhm. naa na est-ce que kii boo demee këram jégalu mu bàyyi. waaw mais bu la wooyee ngay jaay siisu day dem plainte. Mhm. te ñun ko fi def ñoo dañoo daanu. ok donc Balla Gaye bu suba. na dem jégalu ne sama mais nit fii ku ne toog nga fi wax ne da ngay toogaat ne moon wax wane grandeur mais buñ la ko waxul sax boo toogee sa biir néeg yow kese li mhm. nga xam ne lii war ma ko woon def mhm. donc CNG nañu nañu am tolérance ci côté côté boobu aussi macha allah Yves li nga wax noonu am solo mais CNG bi mhm. ñoom benn côté tamit war nañ di dimbali mbër yi tuuti parce que Balla Gaye 2 keroog bi muy wax xëy na fi mu waxee. moo sori ci tàng tàng bi. voilà ci tàng tàng bi. Mm-hmm. ak ak ak moo sàcc bi. loolu tamit parce que CNG tamit ay kilifa ñoo fa ne. parce que boo xoolee Bira Sène ñoom ni mm-hmm. ñun njabootee noonu la Bira Sène njabootee. dëgg la mais boo xoolee ci communication Balla Gaye ni mu communiqué lépp mm-hmm. dafa normal. mais xëy na bu ñu ko convoqué suba. dina dama am ne li mu leen accusé sàcc. loolu moo tax ñu convoqué leen. mais tey Balla Gaye 2 li ko metti ba mu wax loolu. mooy ni bala Gaye 2 dañoo ñëw ne ko yow porte bii ngay jaaree. porte bi Balla Gaye waroon a jaare jouru làmb ji dañoo ñëw ba ci jour ji ñoom ñu waroon a jox bàyyi caabi ji ñu ñëw bàyyi ne leen fii lay jaar ñoom ñu ne noonon munu fi jaar ok si lañ dem wooyu service d'ordre bi ñu ñëw bi ñu ñëwee taxaw coow li bari ñu ne Balla di fi jaar Balla Gaye mujj obligé dem tëb dem tëb waay tëb boobu mu tëb nag ci la ko CNG dagg ci xaalisam mhm. léegi nag ba mu ñëwee moom xam naa ni ñu ko defee. ak bi aussi. mu nekk ci biti une heure de temps taxaw. voilà ak nit ñu mu dugal. loolu moo leen metti mhm. léegi nag ñu daggu ko xam nga tamit ay millions Yves dafa sax ci xol. te bëri tamit wax dëgg fa yàlla. dañuy daj lu metti mhm. di xëy njël di yeewu di dem di entraîné mhm. ji. ngoon jot ñu dem contact. bu ñëwee du xëyaat suba dañuy demaat salle musculation. kon tey CNG. amoon na lu mu daan organiser muy làmb mercredi. parce que loolu CNG bi moo ko daan organisé. Mhm. mais léegi loolu gisatuñ ko. léegi nag depuis loor mbëri li ñuy laaj. Mhm. mooy CNG bi xaalis bi ñuy tàgg mbëri. fan la jëm fan la jëm boobu ça fait cinquante ñu ngi koy posé. ba léegi ba léegi mënuñu ko répondre ba léegi Alioune Sarr nekkee réponse boobu amul waaw léegi nag CNG bi. pour man dafa jot. parce que mbër bu amul woon. Mhm. yaakaar naa CNG bi du am service d'ordre bi ñëw di garder mbër yi. ñu ñëw. Mhm. kon tey ñoom tamit nañu respecter lutteurs yi. tey Gris Bordeaux doon na communiquer mais ni Balla Gaye communiquer nii. c'est la première fois ñu gis mbër boo xam ne communiqué na léegi nag Balla Gaye dañ ko convoqué suba mhm. mais convocation bi ñu convoqué Balla Gaye suba ah gëm naa ne aj mën na ci am pënd bi dina wóori suba man aj mën na ci am waaw parce que le problème mooy mbëri instant bi ñu ci bari dañoo bëgg a teewee convocation Balla Gaye numéro 2 ñëpp gunge ko parce que gunge ko waaw ñëw dugg de ci biir ci biti la ñuy yem de loolu nag xam naa moom suba moom CNG moom ci biir bi lañu lay mun na am mun na am désordre parce que ñoom ñëpp buñ ñëwee xaw ma dañoo bëgg a régler seen situation suba suba mm-hmm. pour ñu ñoom ñu xam fu ñuy parce que Gris Bordeaux wax na lu mel noonu keroog ne VIP yi bu ñu mànkoowee waaw mbëri topp seen ginnaaw waaw léegi ñu régler seen problème ak CNG en ce moment loolu lañ jël parce que instant bii nii ñoom ni ñu convoqué Balla Gaye de suba. doomu dàngu tey jëli woon naa ko. Tëngéej. Mhm. Mhm. moom it xamal na ma ni suba dañ ko convoqué. ok CNG. Mhm. kon tey boo xoolee ñoom ñu ci bari. ñu ngi woote. ci seen téléphone ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. parce que Ada Fass tamit dañ ko aj un an. léegi nag la problème moom CNG dama gis ne li tax ñu convoqué Balla Gaye. mooy tey lu mel ni amoon na fi. ci diggante. ki nga xam ne moom mooy mobile. amoon na fi tey def nañ ko Ada dañ ñaan Balla Gaye bu buñ ko convoqué wul kon nit ñi dinañu yey. parce que dañ naan moom bu waxee lii après mujjul fenn. balaa ñu naan kumba am ndey ak kumba amul ndey la. noonu lay demee. d'accord mais convocation Balla Gaye daal xam naa ne moom. Mm-hmm. Balla bi ma xam man. Mm-hmm. gaw ma ne bu demee. Mm-hmm. dina dina dina jégalu dina jégalu gaw ma ne bu demee dina jégalu parce que fi mu appuyé woon. gëm naa ne bu foofu lay continuer di appuyer mais daal moo sàcc bi. moo diis xaw a diis. d'accord Issa jox ñu benn combat bi ba Elton balaa ñuy dellu siwaat balaa ñuy euh, jeexal émission bi

waa nañ ko def fédération. su ko defee au ay ay mandat nga xamante ni bu toogee deux ans day dem. keneen toog deux mais bëgg toog ay quinze ans vingt ans. seen seen tamit bu ñuy jël décision. dañuy ñëw rek jël décision. duñu te bu ñuy jël décision war nañu invité benn leader. d'accord sa combat bi yow kan la woon. mooy bu mujj bi. d'accord ñu xool combat Bébé Elton ak DMX dellu si waat

bébé sa journée bu daanu ah laay laay laay laay laay da ngay dirigé laay laay laay bébé da ngay dirigé laay laay laay ah laay laay laay laay laay ma dóor daa doom laay laay laay ma dóor daa doom bébé da ngay waaw waay bébé sa journée bu daanu loolu léegi la ko mais nee na ma naa la lu mu gàtt gàtt naa la jox dix biteel. lii de la ma wax. xanaa trente laa jox sax <laughs> mu jël Bébé dafa bëgg a tëj gémminam parce que Bébé nekk gi mu fi nekk di saaga mbër yi. Mhm. ku wax mu saaga la. Mhm. te moomul nit ñi. Mhm. amul doole. mënul bëre mënul xeex Cheikh Niang nee na da koo bëgg a corriger. dama ni mais Cheikh Niang moo tax mu jël fuuf. mais seex nag jiili la mujjee daan jiili bu faas. jiili daa gëjoon bari na. ah mais mais ah, mais jiili mbay naanaanu bërekat la de. ba muy ba muy nekk dëgg ak jiili bi ma gis keroog ci làmb ji. Ah, bokk mais mais mais moom seex ñang da koo défier nee na yaramam bii du yaramu doole. te bu ko jàppee dina xam ne du yaram doole xale bu ndaw. loolu la wax de 2012. am doole ba yàq di entraîné guddeeg bëccëg. Hmm. dama ne sama gëm-gëm dépassé na daan seex ñang dépassé na ko barke Serigne Saliou hmm. waaw kon Cheikh Niang yow. man nar a moom man mbër laa mbër. ok. Eh, jikkoy mbër moo nekk ci man Cheikh euh, Niang neen jàngal bëre de. jikkoy mbër moo nekk ci man sama combat ak Cheikh mhm. bu taxawee moom. Mhm. moom bu taxawee bu arbitre soufflé mu taxaw. Mhm. dëggal boppam. duñ bëree une seconde. barke Serigne Touba ma daan bu naa bu dawee ma dàq ji ko daan ko. bu naawee ma capté ko wàq ba mu xóot suul. xanaa du maa aay. daaw. yëpp ngi defee seen waa seen waa seen mbër mi ah. kaa ma benn affaire de. ngi bëri ku mën a bëri. waaw Cheikh Niang la am na. bëri champion am na ndoxtu bëri nee na ko jox ay bitel. ko bitel. <laughs> daam seen man la faral daam seen man la faral. <laughs> ma mel Thiès. waaw ma daam seen man la faral. Euh, <laughs> a man la faral ci combat bi. waa Thiès duñ ko gëm waaw. waa Thiès yéen ñëpp. gëmuñu ko uh-huh. daam seen léegi mi ngi sama ginnaaw. Cheikh Niang am nga problème <laughs> Cheikh Niang. waaw Bombardier bërki démb woo na ma nee na ma sax yow laa faral. Eh, waaw Bombardier waaw. nee na ma yow laa faral. Eh, waaw Bombardier ak Cheikh Niang benn la dama ni nee <laughs> combat bi man man ñëpp ma bëgg. Uh-huh. mbër yu ma jeeg lu ma jaaxal dafa am bëreet bu nekk ci Cheikh Niang. dama ko wóolu man loo xam ne kenn mënu ko dékku. est-ce que boobu. waaw mën na ko gérer. ngir yàlla mën na ko dékku. Yves sa mbër mi sampion la. man de dama laa gëm man wax dëgg yàlla. xamal naa leen de. <laughs> dama laa gëm de Seydina Mohamed dama ni Yves. man samay supporters yabuma leen. Mhm. te dama am vision ci làmb. Mhm. dama war a am ci dama war a jël sama cër ci làmb. Mhm. barke Serigne Touba combat bi la ma ñëpp di xama damaa daan demix mhm. ñëpp xaaj bi nangul ma Sénégal waaw mais bu ma daanee Cheikh Niang à ma manière adduna wërngal këpp dinañ xam ne kii mbër la parce que avant te sama combat bi laay wane sama bopp xam nga avant yaag demix ñëpp dañ jàppoon ne comédien nga non day comédie dafa bëgg ay feccat day comédie parce que waaw parce que man man fu ma nekk ambiance laay dund mhm. man lenn moo ma sonal mooy sama biir bi su ma lekkee ba suur naan ba màndi aw ma mu àdduna mën naa dox bañ a yor fukki dërëm foofu laa rawee mbëri Cheikh Niang Cheikh Niang de ci làmb ja ngeen gis beneen Cheikh ragal naa rek daam seen woo la téléphone la waxoon naa la hmm? hmm? yow laay yónni hmm? ci Waly Ballago Seck Waly Seck yow Dame Sène ci Waly Seck Maria may sa biige a sa baax barke yonent bi di nit ku ma bax am talent mané way keroog dama ñew soirée mu yégal ma wàññi xaliss bu bëri jox ma barke Serigne Touba dafa mëna a dimbali doomu aadama sama combat ak Cheikh ñang maa ngi la ci wo le 24 novembre bëgg na nga jëndal ma 20 bologu be yow wali Seck yow la wax même Cheikh mom c'est Seck kese la bëgg mu jëndal ma 20 bologu be Sidi Diop waaw Matar Diop suba yow Dame Sène yaa DJ Yves lii yéen laa koy yónni nga yónni Matar Diop suba teel mi yor Sidi Diop laa bëgg ñoom ñaar Matar laa mën a garanti man mm. parce que ci Matar na ma jëndal laa mën a garanti na ma jëndal dix bolok dix Sidi Diop ci yow laa koy yóbbante daam seet mais yow waaw Bébé Elton yow yow mbaru Thiès ngay bëre mais bu may bëre mba ma amee lu ma yóbbu Cheikh Niang laa ko jox de àdduna bi ñëpp may bëggee waa dafa nank doomu Cheikh Niang doomu Cheikh Niang doomam ju ndaw ji Saliou mm-hmm. man rek lay bëggee. faaday waaw dégg naa papa ji ba buñ jàppee télé danaan ko papa jàppal Elton mu ni ko xol day génn taseeg xale yi ci mbedd bi naan ko. borom peel bi ñëw na dina fi ray ay mbër ma ni ki jabla càkka ci keke gën cagi cagin rek borom peel bi ñëw na dina fi ray ay mbër ma ni ki jabla càkka ci keke gën cagi cagin rek El Toñona, El Toñona, El Toñona, la la la la la, El Toñona, El Toñona. No, El Toñona, El Toñona, la la la la la, El Toñona, El Toñona. né? Proteguido. alir bi la wàññi dam li ma wax moo tax wàññi alir bi li ma wax moo tax wàññi alir ah non biraab daal ah non mais dam <laughs> biir ba pare da ci boole manière yi kanam bi waaw wax leen ñi jigéen ngeen wax leen. gars yi dañ ma génne lu bees sax. Hmm. nga naan taas ba taas gin waaw waaw. taas ba taas gin waaw waaw. gin taj. ramax ramax. gis taj. gis taj. gis taj. gis taj. yaa dégg loolu daa fees Cheikh Niang Cheikh Niang am nga problème am nga problème de Cheikh ba ko ba am Cheikh Niang am nga problème mais Yves boo gisee mbër yi ñeme mbëru Thiès yi ñàkk jàppale rek mbëru Thiès yi ku leen ñeme rek ñàkk jàppale tax nga